coowal Ndingler moom foog naa ne Sénégal gépp jot nañ ci daanaka sax àdduna jot na ci ak réseaux sociaux yi dafa gën a amplifier euh, ba tax samedi la ci ginnaaw su ma naataangoo ab ministre Abdou Karim Fafana duggoon ci pour dox tànk jàmm diggante population wu Ndingler ak euh, le promoteur Sedima Babacar Ngom nga xam ne moo ko jiite. Euh, ñu waxtaan ci xool naka la ñuy mën na trouver solution waxtaan bi yàgg na ba wax dëgg yàlla mu euh, demoon ba nekk ci yoon boo xam ne bii war nañ ci mën a juboo euh, man ci sama jëmmi bopp li mu daan def yëpp nag wax dëgg yàlla ñu ngi ci doon waxtaan ma jël le relais une semaine ci ginnaaw maanaam talaata bi passé ma ànd ak moom ñu dal di dem ci terrain bi nga xam ne bii fa la coow li am xool ko apprécier ko natt ko ensuite ñu jógee fa dem ca village ba Ndingler def ñoom ak ñoom réunion talaata bi passé euh, bi ñu fa jógee samedi samedi bi ma dellu également euh, ci terrain bi ànd ak population yi waa Ndingler chef de village bi ak yenn kilifa ak euh, responsable yi nga xam ne yi ci ci dëkk ba lën ne ak même ay facilitateurs pour ñu waxtaan la ñu doon def samedi mooy jéem a xool ak ñoom naka la ñuy nattee li nga xam ne lii moom la kenn ku nekk ci ñoom daal di occupé loolu moo waraloon bi ñu fay dem ñu yóbbu fa géomètre bi ñu demee natt nañ euh, tool yi déjà nattu jotaguñu natt tool yëpp parce que tool yi ñëpp nekkuñ fa woon kenn ku ci nekk yaa ñu indiqué sa tool ñu natt ko parce que bi ñu leen laajee ci biir waxtaan ñu bari xamuñ woon seen tool yaatuwaay bi nu mu toll. donc ñu def ko parce que tamit solution bi dans tous les cas ñu koy trouver il faut ñu trouver ko fekk ñu xam tool yi nu mu toll donc ñu jël euh, natt nañ fukki tool ak benn ci ña fa nekkoon mu nekk fukki hectare ak juróom benn mu desaat nag ñaar fukki tool ak juróom-ñeent yoo xam ne war nañ koo natt. donc tool yooyu lañu ci woon mooy buñ ko nattee ba pare ñu xool fu ñuy nokka la ñuy bayee parce que ba ci période boobu euh, dafa am foo xam ne fii promoteur bi proposé woon ne nañ fa nangoo léegi bi nga xam ne bii wax nañu leen loolu ñoom aussi ca gannaaw ko ñu waxtaan d'accorduñ ci boobu proposition bi ma ci jotee wax dëgg yàlla ci lañ continuer di waxtaan ak promoteur bi di Babacar Ngom euh, bu Sedima waxtaan ak moom ci solution bi ne ko gannaaw nawet bi ñëw na nawet bi maîtriser moom moomuñu ko euh, maîtriser wun kan la ñuy taw te chaque jour bu tawee ñoom bu ñu jiwul dañuy tardé donc ni ñu mën a jël comme décision mooy néga ni moom na arrêté liggéey bi muy def foofu ci tool yi mu bàyyi baykat yi ñu dellu ci tool yenn daan bay ci at mi comme ça bu fekkee dem nañ ci tool yi ñun danañ continuer natt bi ñuy def comme ni ma ko waxee woon ca njëlbeen te wax ko également samedi mooy waxtaan bi ñuy am dañ koy continuer ci ñeenti weer yi pour que bu yàlla defee peut-être fii ak nawet bi jeex danañ mën a am solution boo xam ne bii maanaam dootu doon solution bi négandu ko day nekk solution définitive pour que ñu xool kenn ku ci nekk bu ñu ci nawet bi fan a jëm loolu moo waraloon nag donc wax dëgg yàlla bi loolu amee ñu waxtaan ci mu nangu ko waxtaan ci également ak village bi ne leen nag ku ci am looy ji bu neex yàlla bu subaa mën nga ànd ak sa njaboot nga dem ji sa tool kenn ku nekk ci ñoom xam na fa mu tàmbali woon xam na fu toolam yem am nañ yaakaar ne bu ñu ko defee déjà au moins pour nawet bi pour euh, paysan yi béykat yi mën nañu sauver seen nawet également jàmm dikk ci foofu ci ci ci gox boobu la. waaw waxtaan bi dina continuer parce que bu doon suñu sago lu buñ ci jógee comme ni ma leen ko waxee ci ñeenti weer yi ñu am solution boo xam ne bii say nekk solution définitive kenn dootu fi nekk di wax ay suufal ndengleer coowal ndengleer am Babacar jàppal sédiment donc loolu yaakaar naa ne loolu daal moom mooy suñu yéenee te yaakaar ne kenn ku nekk ci ñoom nekk na ci disposition yooyu.